waaw vraiment xol bu tooy laa ko dundé quoi en même temps di ñaax nit ñi surtout lolu. ñu xam ne fii ci biir parcelle man mosuma ko xam dégg naa pépinière bu Mbour dégg naa bu Thiès dégg naa un peu partout dans le Sénégal mais fii ci biir Ndakaaru biir parcelle Assainies ci kër gu mel nii nga dajale fi ay xale yoo xam ne dañoo soxla ndimbal am na ñoo xam ne seen yaay moo faatu am na ñoo xam ne seen papa moo leen mëntul yére am na ñoo xam ne seen yaay ñoo leen sandi am na ñoo xam situation bu nekk am na fi donc xale yu bari bari bari ñu ngi ci biir soxla ku leen wàllu yu soxla ku leen def attention donc main solidaire bu ñëwee tey ñun ñu ñëw ànd si indi sunu participation parce que am nañ chance bu ñu waxee nit ñi dégg ñu wala ñu woy woy bi dem fu sori dañuy ñaax nit ñi ku ci am ndimbal ku ci am loo kii xam ne am na ay xale yu fi nekk ay euh, ay euh, vraiment xale yu soxla ndimbal yu fi ne yoo xam ne sama xol toll na foo xam ne wax ji sax dafa ma diis yàlla na yàlla def jàmm amin amin di wax ne kër gi comme ni ngeen ko gisee moo nekk nii donc euh, am plus de 75 enfants donc soo xoolee liiri rek ëpp nañu 40 de 0 à 3 ans donc ñu jar a jàppale la association main solidaire ñëw na mais li ñu def xeeb nañ ko parce que xale yi fi nekk soxlañ nañ ndimbal comme ni ko cheikh waxee léegi donc il faut ñun sénégalais yi ñu mën ci jàpp tamit xam ne waratuñu xaar ong yi waratuñu xaar ñeneen ñu ñëw waratuñu xaar tout tubaab yeeg mu wax ko noonu sax ñuy ñëw il ñun ñu mën jël si suñu doole jël suñuy temps tamit jàppale suñu doom parce que suñu doom lañu xale yi fi nekk amu fi tubaab amu fi keneen suñu doom lañu ay sénégalais lañu peut-être li leen fi andi euh, ñoom du seen coobare du seen coobare vraiment donc euh, nañ ci jàpp daal. waaw surtout am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi nekk bëgg a jàppale xamuñu fu ñuy jaar xamuñu ne lii am na fi.

mais moins solidaire mu ngi fi aussi ay nit yu am seen liggéey bàyyi seen liggéey bàyyi seen kër bàyyi seen lépp am li ñu am ak li ñu amul boole ko pour ñëw dimbali ñoo xam ne vraiment dañ ko soxla kuy ñëw na nga ñëw. dinañ bàyyi donc imagine que dinañ bàyyi sous-titrage boo xam ne numéro pour contracter pour contacter mais solidaire mais évidemment fu ñu war a dem yes donc di invité Sanou Ndiaye mu parce que président moi président No Stress donc pour wax ne solidarité Sénégal le na foo xam que nekkatul ne man association avec là, kenen bokku ci donc li moy woné né solidarité bi yegg na fo xamné waratu fa yegg na fo xamné dayo donc Sanu Ndiaye ma bay la nga présenter wu présenter ce groupe tamit. asalaamaaleykum man ma ngi Sanu Ndiaye bokk groupe bu ñu wax No mais comme l'a bien dit le président de Main Solidaire. Donc, la, on, nous rejoignons la solidarité de, de, je veux dire, de Main Solidaire aujourd'hui, Andagnom pour Dimoli, euh, Madame Sadio, ci daara bi mu yoré ak ak euh, temps tànk yi nga Yorlen dans le leen daanaka yombul donc képp ku si dugal sa loxo defaloo ko Madame Sadio mais sa bopp nga ko defal ndaxte la xaal fi amul lu ñuy perte lépp def lu baax àlakuli xaal dafay dellu ci yow wala sa njaboot donc ki nga xamante ni jàpp nañu que war na mun jàppale Madame Sadio je pense que y a pas meilleur moyen que ñëw fii

Voilà, merci beaucoup. Donc dire que voilà, c'est euh, l'association Main Solidaire qui était venue appuyer le Dara Salou, qui est un orphelinat qui accueille euh, euh, beaucoup d'enfants. Donc il y a plus de 40 bébés de 0 à 3 ans. Ils méritent d'être soutenus. voilà, il faudra vraiment venir qu'on y mette tous la main à mette tous la main à la pâte pour pouvoir aider cet orphelinat. Merci à vous et merci à, tous nos généreux donateurs. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Donc Charbel, le secrétaire général, Aïssatou, la trésorerie donc Badian Aram, Madame Ndiaye, voilà, euh, Cher Tidjan c'est l'artiste engagé, euh, Sanou Ndiaye, président de Nostresland, une autre association de solidarité sénégalaise. Et merci à Gedjewai Info.com qui est venu aussi nous aider à couvrir. Et à, euh, comme l'a dit Cher tout à l'heure, hein, on ne fait pas les images juste pour montrer ce que nous faisons, mais c'est vraiment pour que les gens puissent voir que, voilà, il y a une maison aujourd'hui qui accueille des enfants et qui a besoin d'aide. Et l'appel que nous lançons aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir les, venir aider Madame Sadio et, les enfants. Vous verrez le numéro tout à l'heure, donc vous pourrez les appeler directement pour faire des dons, même pas, ne, même pas passer par main solidaire ou par Nostra, mais venir voir ce qui se fait dans cette maison-là et pouvoir aider cette, dame-là. Euh, voilà, merci beaucoup.